ndigal li muy jural ab jaam bu nangu ak lim koy musal nangu ndigal nag bu ñu ko dee waxtaane bu ñëw ko sona risaali fii la gën a safee sang bu tedd bee moo nangu ndigal kii kii la borom këram bu tedd bi sëriñ bee ci boromam bi jox ndigalam li daal na ko wéyal nag tabul gestu tabul tontu dana leer ni bëccëg nekk ci rek kii moo wëy gestuwul tontuwul raw rawaaleel ko ànd ak moom si nga ne na fànn te day gën a leer. dara poofu Serigne Béthio bi moo ko téye te laal suuf kanam kanam kaw kaw rek saa yu ñu xëyee àddina di gën a xam ni Serigne Béthio amul jànnandoo ngir lan ndigal lii da koo wet wetalu koo ju jiwu ko raxu ko suñ becco piir suñ becco ju leer nañ ñi suñ becco suñ becco ju weex tàll ba ku ci nekk di ko dund moo tax léeg-léeg nga dégg ku ni Soxna Aida jëfe wut ndigal wala nangu wut ndigal waaye kooka nañ ko laaj ni ko moo Soxna Aida lan lañ ko digal lu mu defut kii ne lépp luñ ko digal moo ngi ci lépp lu lislaam bëggul buñ la ca gis lépp lu ak taalibe bëggul buñ la ca gis waxuma la gisuñu la ci li lislaam bëggul ma la gis ñu la ci le ak taalibe bëggul waaye yaa dëkke ci def lu sagal lislaam yaa dëkke ci def lu sagal ak taalibe waaw yooyu daa war leer kooku liñ ko digal ci la ne lu islam bëggul bu ci ne lu taalibe bëggul duñ la ci gis waxuma ne ci waaye dama ne ki dëkk def lu sagal lislaam def lu sagal ak taalibe mooy soxna Aida Saliou mii